muhammad ibnu siidi ibnu abdullahi ñi gën koo siiwee wala mu gën a siiwee ci badd ibnu siidin al alawi moo doon wax ak ab jarbaatam nga xam ne mu ngi tudd cheikh ahmed ibnu cheikh mouhamadul hafiz al alawi mbokkam mu jigéen moo jur kooku kon ab jarbaatam la mu di ko dénk mu ne inna siyaadata fi ithnatayni fala takun yabna almashayikhi fihima bizahidi حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعد قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد من إن السيادة نكا تشنغ في اثنتين أجنك لتنيار فلا تكن بلنك يا ابن المشايخ يا دوم سرينس بالزاهد لأجددو فيهما تنيار mu ne ko ak càng day mu ngi ci ñaar yii yow mi nga xam ne nag say baaye ki say maam ay sëriñ lañ maa ngi lay wax ne bul wan ginnaaw ñaar yooyu mukk di ko dëdd bu fekkee ne bëgg nga am ak càng ndaxte nekk doomi ñu baax loolu rek doyut de jarbaatam bi boo xoolee ci wàlli baayam ak ci wàlli ndeyam ci ay maamam ak baayam yëpp ay sëriñ lañ waaye teewul mu wax ko moom baddi di wax jarbaatam boobu di ko wax ne ko bu fekkee ak càng nga bëgg bu ko wekk ci deret bu ko wekk ci askan bu ko wekk ci deret bu ko wekk ci askan bu doon ne aw askan rek la ay yonent seeni doom duñ dem safara ndax ca askan yu baax lañ bokk kon fi koy wekk ci ñaar la mu ne ñaar yooy nag bu ko wan ginnaaw mukk bu njëkk ba xamlul mashaqati mooy yenu ab coono faw nga nangoo gàddu coono nangoo wante jafe-jafe bu dee xam-xam la nga nga nangoo tumuranke nangoo xiif nangoo nangoo nangoo sonn nangoo ñàkk nelaw nangoo ak nangu ak rafle yooyu yëpp faw nga nangu ko comme ak mbaax goo xam moo lay def sang faw nga nangoo nga nangoo gàddu coono waaye bëgg kawe te nangoo sonn loolu amul fenn Moustapha Guèye rahmatullahi alayhi moo doon wax naan képp koo xam ne daa bëgg tedd dafa su yéene liggéey ak tappale rek ak tappale ndaxte càng moom kenn du ko am ci ne doomi diw la diwee saa baay diwee saa maam taxut laa nekk càng kii doomi sang la surtout ay sang la waaye teewul nijaayam di ko dénk ne ko ak càng boo ko bëggee bu ko acc ci deret bu ko acc ci askan waaye aj ko ci ma lay dénk bu njëkk ba mu ne xamdul mashaqati gàddu coono waxtimaalu adal wara ak muñ lori bindeef fi nit ñi danañ la lor waaye bu fekkee mënoo muñ lor yooyu di bàyyeekoo ci bindeef fi xamal ne doo nekk sang boo xoolee yonent yi radwa salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhim ajmain seeni nit lor yu nekk lor nañ leen ko waaye teewul dañoo muñ bañ demee ba jekku sax dañoo ñaan borom bi rawatina ku mel ni yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam daa ñaan borom bi jéggal leen allahumma axfir li qawmi fa innahum laa yaalamuun kon nag pour nga nekk sang faw nga nangu tamit lor gi leen mbindéef yi di lor nga nangu ko muñ na bu fekkee dangay ngay woote ci yoonu dëgg ndaxte li jàkkaarloog dëgg di ko xeex daa bari te lor bu nekk danañ la ko def laysa nekkul almucammiru aji wogu lil olaa jëm ci kaw akal xaay di mel ni aji jékki aji toog mu ne li tax nga war a muñ war a nangoo jànkuwante ak coono wara a luñ war a muñ lor yi bàyyeekoo ci mbindeef yi mu ne kii nga xam ne dafa wagu takkaayu bëgg a dem ca kaw bokkut ak ki nga xam ne dafa jékki nga xam ne moom jëmut fenn fi ko keroog suba gi fekkoon fa la ko keroog ngoor gi di bàyyi kooku jëru topp jëru déglu ndaxte lu lay découragé ak lu lay yàqal kese lay wax bu sañoon ñëpp mel ni ñoom nit ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci yoonu safaan bu ñu sañoon toujours nit ñi kenn du baax dañuy bëgg ñëpp yemandoo ak ñoom boo nekkee ci jotaay ki nga xam ne dafa tayal nanguute liggéey wala nanguute jàngi toujours luy découragé loo nit ñi wala luy tax nit ñi toog tegi baraada yooyu rek ci lay wax ku bëgg dem sax mu fexe ba nga fomat ku mel noonu kenn du ko topp danga koy wan ginnaaw moo tax wolof yi di wax ne bu fekkee ne da ngaa nekk ci kanam tëg wala da ngay yéeg képp ku wax lu bon wala mu lor la rek nga bëgg a wàcc tontu ko bu yàggee yàgg ñoom ay yem ñooñu lañ bëgg mooy nga toog yemandoo ak ñoom na ñoo xam ne bëgguñ kenn ku baax boo waxee ñu ne la ñëpp yem pour mbon gi tasaaroo nga xam ne ñëpp cay bokk yem ku baax dootul amati référence dootul amati waaw loolu ab campagne la boo xam ne ñenn ñi moom la ñu doxale mu ne qul waxal lilladi ñeel ka nga xam ne talaba sàkku na al ula kawe bi siwaahuma ci dul duwul ñaar yooyu mooy nangoo sonn ak ak muñ lori bindeef bu fekkee da ngay wut kawe te ñaar yooyu noonu da nga koo wan ginnaaw waxal kooku ne ko xeexaata sori mooy mënta am loolu ngay wut mënta am tadribu yaa ngi dóor fii xadidin ci weñ baaridin nga aji sedd da ngaa fekk weñ goo xam ne ni tàngaloo ko ci safara ba pare nga bëgg koo noddanti nga bëgg koo jubbanti loolu mënta nekk da koy dugal ci safara bi ba pare bam mu nooy nga door ko mën a jubbanti kon kooku day nax boppam ki bëgg kawe te fasut yéene sonn bëgg tedd te nangoo sonn nanguwul muñ lor yi bàyyeekoo ci mbindeef yàlla yi kon boobaa xamal ne yaa ki ñëw fekk weñ goo xamante ne ma nga sedd guy mu jël ab sim mu jël ab ab martoom ne da koy jubbanti kooku day day day perte temps ak sonal boppam mu daal di jeex ñi ñëw ci xasida gi nga xam ne mooy laamiyatu bnul wardi laamiyatu bnul wardi moom la téere bi siiwee waaye ki ko taalif tuddeewu ko laamiyatu bnul wardi lu tax ñu koy wax laamiyatu bnul wardi ngir ne lam la téere bi daane comme ni ñuy waxee addaaliya ni ñuy waxee arraiya ni ñuy waxee albaiya moo tax ñu koy waxee laamiyatu bnul wardi waaye borom mu ngi ko tuddee woon nasihatul xul nasihatul ixwaan wa mursidatul xullaan wala xillaan maanaam conseil yoo xam ne moom lay jox ay mbokkam ak njub goo xamante ne nii gindi goo xam ne moom lay jox ay xaritam kooku mooy Umar ibnu Muzaffar ibnu Umar ibnu Muhammad ibnu Abil Fawaris ñi ko doon Abu Hafsin Zeynuddin ibnu al Wardi al Maarri al Kindi loolu moo doon aw turam mu ngi dëkkoon dëkk bu ñuy wax Syrie Cham ci dëkk ba ñuy wax Maaratu Nu'maan ca pegg Haleb mu ngi bokkoon ci giir gu ñuy wax Kinda nekkoon ab boroom xam-xam nekkoon ab shaa'ir nekkoon ab adib waaye nekkoon ab politicien ba méngoo woon na ay poste ci wàllu atte ci jamono ji nga xam ne moom la doon dund ginnaaw gi nag bam ci ca nekkee lu mat ay fukki at ak nangam wala fukki at mu gënt gis ak mu gënt ci gënt ga ginnaw gëntam goga nak la bàyyi lepp lo xamne dafa jëm ci politique beru dem di jang di jangale di talif mom nak mu ngi juddou ci atum <coughs> juddou yonte yàlla Isa bu mu amé 1292 miladi ci hal ci mar maratu Nu'man 1292 génn àdduna 1349 miladi euh, mu tàmbalee téeréem bi nag comme téere yi ko jiitu wala comme xasida yi ko jiitu yu mel ni nuniyatul busti ak euh, ak euh, zeynabu nga xam ne la def mooy dénkaane ak ay laaya ak ay fàttali moom Amru bnul Wardi bi tamit ñi fàtte ne ab philosophe la woon al falsafa amoon na ci cër nekkoon ab philosophe mu ne i'tadil dikra al agani wal ghazal wa qulil fasla wa janib man hazal mu ne i'tazil berul beddeekul dikra al agani fàttaliku wayya al agani jamono ci al ugniyatu wal ghazal ak beej wa qul nga wax al fasla dëgg wa jaanib nga moytandiku man ka xam ne xësal kaf na wala caaxaan mu ne nanga beru ay way béej tamit na ko beddeeku na ko sori béej mooy di mellal ay jigéen wala ngay wax ak ñoom wax yoo xam ne waxi mbëggeel la wala nga leen di mellal loolu ñu tuddee alxazal mooy béej loolu udabaaw yi dañ ko daan faral di def mu ne nag yooyu yëpp na nga ko woon ginnaaw ngay wax deug al faslu moy deug ndax té dañuy wax ne deug moy takalé digënté nén ak manam digënté al haqq ak batil wa deug moy li takalé tiaxan ak ay lo xamné deug la al faslu moy ñëw di takalé wax jo xamné day takalé digënté deug ak nén nga bàyyi tiaxan ak képp ko xamné day tiaxan innahu la qawlun la qawlum fasl wa ma huwa bil hazm loolu lay wax fi rek لقول انه لقول فصل واخي دغ لا وما هو بالهز دو اي تياخان دو اي فو كون ديل واخ دغ تا لب لي تياخان غا وون كو غيناو اك كيب كوي تياخان وداعي بايل الذكرى فاتلك لايام الصبا نيل فاني غوني فاني ندو فلي ايام الصبا نيل فاني غوني نجم بنديو بديو افال بوب سوخنا من بايل دي فاتلك جامونو ندو دا خامني جامونو ندو اب بديو لا بديو سوخنا مورونا إن أهنا عيشة قضيتها ولا قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل mu ne inna ahna aishatin naka gën caa neex ci dund inna ahna a la ahna a waaye way bee tax mu ne inna ahna woyofal ko mu ne inna ahna aishatin naka gën caa neex ci dund qadaytaha boobu paase nga ko wala joox nga ko mooy def nga ko zahaba dem na la zaatuha ay bànneexam wal ismu ta bàkkaar bi xal la wàcc na li tax nga war a wan ginnaaw dundi ndaw googu mu ne la gënoon a neex ca dund booba paase nga ko bànneex ba nga ca defoon dem na te bàkkaar ba moo fa des bu fekkee ne bàkkaar ba tuuboo ko woon kon loolu waroo ko fàttaliku loola jooy nga war a def wadkur dunubaka wabkiha yaa muznibu comme nu mu ko waxee woon ci ginnaaw kon toog di fàttaliku ay jamono joo xam ne ni lañ ca defoon loolu ay bàkkaar la bu fekkee tuuboo ko bàkkaar yooyu ma nga fa sax ñeel la nga toog di ko fàttaliku la chaque ne loolu bokkul ci xelu kon nit ki ñaaw yu mu defoon ci jamono ngoneem loolu dafa war am kersa di ko nettali loo xam ne ne ay bakkaar la moo di ko ndamoo di ko fàttaliku la chaque ne loolu ko am xel war koo def la la war kay mooy jéggalu borom bi tuub bàkkaar yooyu njëkk ngay faatu bu fekkee tuuboo ko woon bu fekkee tuuboon nga ko nag kon waratoo koo nekk di ko fàttaliku mu mu ne wa la taxfil biha تمسي في عز وترفع وتجل وترفع وتجل mu ne watruki bàyyil alxaadata jongama mooy jongama ju naay yoo xam ne ne yaram dafa nooy laa taxfil bul dajee bihaa ci ñoom laa taxfil bul dajee bihaa ci ñoom am na ñuy tuddee laa taxfil bul faale bihaa ci ñoom laa taxfil bul dajeeg bihaa ci ñoom wala bul faale bihaa ci ñoom boo ko defee day tum si da nga mujj fii izin ci tedd nga wa turfa yëkkateef la wa tojal màggaleef la mu ne boo wanee ginnaaw jongoma yooyu mu ne daje woo ñoom mu ne boobaa day xamal ne da nga nekk ci tedd nga danañ la yëkkati la màggal ndaxte boo mooy tuul yi moom daanaka da nga ci loo xamante ne nii loolu day ñu xeeb la day ñu suufeel la mu ne walha an alati lahwin atrabat wa an il amradi murtajil kafal mu ne walha jéllaleel an alati lahwin walis jumtukaayi fo mooy jumtukaayi musique yeeg yooyu atrabat nga xam ne sigir le loo na mooy kontaan loo na wa anil amradi na nga jëllale ba tey walis ndawal tooyam mooy koo xam ne ni amagul sikkim xale bu góor bu amagul sikkim bu saxagul ta jël kafal kay aji yëngatu ci fàllare fàllare mooy njëkkikaay nga xam ne njëkkikaay ña nga yëngatu in tabaddaatan kasifu shamsu duha وإذا ما ماس يزري بالأسل من إنت بدا بو فيني موم خالي بو غور بو دي ندوال تويم تا فالا رامي دي ييكتو فالا بو كاي من بو فيني تان كسي بو دي جنت بي يور يور بوكو غيسي داي رافيت رافيتايام بوبو اك ليرايام بوبو داي مور سخ جنت بي يور يور لير لير مبالغه لا واني دا لير دا فا رافيت لير وإذا ما ماس بو جايو ماس يميسو جايو بمعنى ما دا waaw bu jaayoo yusri day xeeb asra yusri bil asal ci guntux bil ci guntux mu ne bu jaayoo day xeeb guntux moo dàq jaayu guntux foofu li muy wax mooy wanal ginnaaw jigéen ñi wanal ginnaaw musique ak jumtukaayu musique wanal ginnaaw tamit xale yu góor yi nga xam ne dañoo am ay njëkkeekaay nekk ay ndaw nga xam ne dañoo rafet lool mu ne ñoo ñëpp nag leen wan ginnaaw xam bu njëkk am na si ñu bari ci ñoom dañuy tuddee wàllu alquran di ko tuddee fahisha innakum la tatuna al fahishata zukrana min al alamin wala innakum la tatuna al fahishata ma sabaqukum afwan innakum la tatuna al fahishata ma sabaqukum biha min ahadin min al alamin fahisha boobu noonu mooy ngóor jigéen léegi nag kon moytul jonga may waaye moytul tamit lépp lu jëm ci wàllum ngóor jigéen nga xam ne dañuy xemem xale bu góor kon loolu tamit na ko moytu donte baat boobu noonu jamono ji nit ñi ñu ngi koy jëfandikoo wala ci jamono yàgg sax di ko tuddee al liwaat te liwaat buñ ko seetloo ni ko suñu sëriñ ba al ustaaz Omar Samba hafizahullahu doon waxee mu ne tuddee giñ ko tuddee ngóor jigéen ñi koy delloo ci al liwaat nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci turu yonent yàlla luut mu ne loolu lu loolu lu doy waar la ndaxte yonent yàlla luut aw nitam ñoo doon def loola kon beneen tur lañ ko waroon a wutal budul jël jëf jooju di ko askanale ki nga xam ne mooy yónnent yàlla lóot ki nga xam ne mooy yónnent yàlla lóot waaye alquran amul fenn fu yàlla askanalee jëf jooju noonu yónnent yàlla lóot yàlla faaxisha la ko tuddee la taatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min ahadin min alaalamin kon loolu euh, mbir mu doy waar la waaye arab yi moom def nañ loolu daal en tout cas mu ne zaada inqisnaahu bil badri sanan aw adalnaahu bi xusnin fa atadal mu ne zaada ëpp na moom xale bu góor boobu inqisnaahu buñ ko nattee bil badri ci weer sanan ci leer zaada ëpp na sanan leer inqisnaahu buñ ko nattalee bil badri ci weer mu ne buñ ko nattaleeg weer ci wàllu leeraay moom xale bu góor boobu moo gën a leer weer moo ko ëpp leer aw adalnaahu wala ñu tollale ko bi xusnin ci bànqaas fa atadal mu yemoo mu ne buñ ko tollaleeg bànqaas tamit da gis ne day jub kocc yemoo waaw aw adal naahu wala ñu tollale ko bi xusnin ci bànqaas faatadal mu dal di yemoo jub kocc kon xale bu góor boobu noonu la rafetee noonu la leere waaye noonu la taxawaay ba jubee tamit mu ne waftakir fii munta xusni alladi anta tahwaahu tajid amran jalal mu ne waftakir xalaatal fii munta xusni allasi xusni alladi ci daytalu waayu rafet la nga xam ne wala ka nga xam ne anta yow tëxwaahu yaa ngi koy bëgg yaa ngi koy sopp tajit di ko fekk amran muy mbir jalal mu xeebu jalal mu xeebu jalal daa bokk ci li ñuy al adudaat baat yi nga xam ne dañuy mbiri mbir dañuy firi mbir di firi seen ab safaan ni ki baatab day firi feeñ na waaye day firi nëbbu na wala xafa mu ne nag na nga xalaat yow ci li nga xam ne ko bëgg nga maanaam dafa rafet tax nga bëgg ko mu ne nag war ngaa xalaat ci ak mujjëm fan mooy mujj waayam li tax nga fàtte yàlla wala li tax nga topp bay def ay bàkkaar ay ñaawteef wala ki tax nga xam ne ni moo tax nga koy bokkaale yàlla di ko jaxaseek leneen wala nga koy jox cër boo xamante ne ni bëgg gi nga ko bëgg yàlla nga ko a bëgg mu ne mbir moom war nga cee xalaat waftakir xalaatal fii muntaha husni lazi ci daytalu waayu rafet ak li nga xam ne anta tax waaw yaa ngi ko bëgg lépp loo bëgg ak lu mu rafet rafet war ngaa xalaat ak mu jëm ba doo ko yeggale wala doo ko teg foo xam ne nii du palaasam ndaxte mbir ma lum rëy rëy fa yow mu ne boo xalaatee ak mu jëm wala nit ka lum rëy rëy fa yow li nga bëgg lum rëy rëy fa yow ba tax mu tere laa bàyyi ndigali yàlla yi maanaam yàlla sant la dara nga wan loola ginnaaw wala nga jël cër yoo xam ne cër yàlla la ba di ko jox kooku nga xam ne ni ak mbindeef la mu ne boo xalaatoon ak loo koy bëgg-bëgg ak lum taaru taaru moo xam jigéen la moo xam nit la moo xam. Euh, doomu aadama la boo xam ne danga nga koo jàppee leneen mu ne lum taaru taaru ak lum baax baax mu ne xalaatal ci ak mu jëm rek warul laa tax a fàtte yàlla warul tax tamit nga bàyyi santaane yàlla yi ndaxte boo xoolee ak tàmbalim lu xeebu la waaye boo xoolee fa muy mujj lu xeebu lay doon bu fekkee gudd na fan da nga gis ne dana màggat ba lax ba ñaaw ba sonn lool ginnaaw ba tamit bu fa jógewee da gis ne day dañ koy dugal ci biir suuf sax yi ñoo koy mujjee yaa ngi dégg mu daal di jeex ay yaxam daal di ràpp wala bu dul loolu nga xool bu dee nit la ci biir dundam yi nga xam ne fa la ko yàlla jaarale ah nga xam ne day lekk di naan yooyu yëpp te kuy lekk dinaan na ko yàlla waxoon ci yonent yàlla Isa ba nga xamante ne nii nasaraan yi ñu ngi koy jël di teg yàlla mu leen ah Isa ak yaayam de kaanaa yakulaani taam kaanaa yakulaani kon nit lépp lu mu bëgg ak lépp lu sopp na ko sopp selon na ko yàlla waxee ak fa nga xamante nii فوفلكو يالا فوفلكو يالا جغلل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم